ayca ñu ànd nag ak Cheikh Bara Ndiaye mi yëkkati ay kàddu jëmale ko ci Mame Mbaye ci ñàkk d'accord bi mu d'accordul ci euh, candidature ki nga xamante ne ni moo di premier ministre bi di Amadou Ba ñu dem déglu kàddu yi ci Cheikh Bara yëkkati dellusi léegi li lay wax ne état bi dafa daanu ci kanamu Ousmane Sonko mm. mooy Mame Mbaye Niang comportement bi mu am ci ñoom euh, Macky Sall. ban comportement da leen santaas santaas non daf leen santaas lan moo tax maam booy jaawoo daan ne. maam bay ñaar non maam buy jaawoo. daan ne man ànduma ci candidature Amadou Ba maanaam deful 30 minutes rek ñu dàq ko. waaw Aly Ngouille Ndiaye d'accord ci dañ ko dàq. Mhm. Benno Bokk Yaakaar loo xam ne du lowaadu dara dañ ne woon bu kenn wax ci troisième mandat bi ci faa jaxate waxee dañ ko dàq. Moussa Diop bi mu ci waxee dañ ko dàq. Mhm. Souri Kaba bi mu ci waxee dañ ko dàq. Mhm. pourtant maam bay ñaar. Benno Bokk Yaakaar dañu élire seen candidat di di di di war ko war ko defal congrès pour investir investir ko ci journée bi mamba yi génn na ànduma ci kii du dara du gagné ba pare daana sensé leen ko te ba tey APR doo gis ko sax lu tax mu def ko ah, lan moo may mambay maqaama boobu loo yaakaar ne moo ah, loolu la ñu bëri xamul na gis nga mambay li ñuy toppee Ousmane Sonko maam bay xam na ne bu dee aji saar moom ba tey ci aji saar moom amul maanaam aji saar moom mooy ngelaw lu jàll aji saar mosul fanaanal Sonko kaso yàqalu ko inéligibilité am te biñ koy teg aji saar bi pour tëj ko kaso la woon ak dindi éligibilité aji saar moom féete na ne dossier boobu moom soo Sonko def ci génn ak san pour cent ndam mooy ba nii aji saar mënul tere Sonko nekkub candidat ba nii Sonko fanaanul kaso parce que dafa joteeg aji saar dara maanaam yàqu na dossier boobu moom mooy loo xam état bi def na ci lépp mhm. mais yàqu na léegi nag ban dossier moo des mooy dossier Mame Mbaye Niang fii na mambay bu ko neexoon tey bu ko waa APR dàqoon tey. waaw bu subaa mu rotti plainte bi Sonko Sonko dossier mag Sonko yàqu. mu daal di jeex. waaw loolu fii ne ñu bëri xamuñu. su rocci woon pelentam tey tey tey tey nii maanaam bi mu nee Amadou Ba àndu mag yow xam nga moom ministre la. nañ ko dàq. ndax dàq ñu ko te ah! wax sa. soo ko dàqee ak ak soo ko dàqee mu dem dindi plainte bi bu subaa léegi lakkaat bi looy àtte <laughs> loolu la leen def nii di. kon da nga bëgg looloo tax Mame Mbaye am audace taxaw ne leen eh maa ngi nii ministre la bennoo laa bokk APR laa bokk ànduma ci am. jërëjëf Aïcha mi ngi noonu moom Cheikh Bara Ndiaye nag euh, ku ñuy wax Ngoné saliw moom moo ko dalaloon euh, ci fële ci sans limite ñu leen di nuyu bu baax a baax en pensant euh, Cheikh kii Alaaji Euh, su ma déggee euh, Cheikh daal dafa mel ni euh, Mame Mbaye Niang dafa am pouvoir bu nga xamante ne nii comme ay Aly Ngouille Mame Boye ñoo ñu mu tudd ñëpp te ñu nekkoon ci parti bi ginnaaw bu ñu waxee ci ñàkk d' accord beeg ñenn ñi wax si candidature troisième mandat bi dañ leen d' accord tey Mame Mbaye dafa am pouvoir peut-être bu ñooñu amul moo ko bàyyi ci bile parti ba léegi te lu mu wax dara du ko ci fekk. waaw allah Cheikh Bara Ndiaye euh, def na jàngat boo xam ne jàngat bu xóot la wane na li wane tey mambay euh, di fëgg dënn maanaam euh, nga xamante ni bi am na sañ-sañ parce que xam nañi fi mu toll nii am na fu mu teg tànkam li Cheikh Baara def nag bon xam nga dafa am ñoo xam ne suñu borom daf leen a may maanaam buy lëndëm it ñi ngi gis liy xew ñiy làqatoog ñiy wuti pexe ngir bëgg a génn ci yenn yi parfois day baax nga gëmm bàyyi leen ñu def li ngay def waaw parce que pareen saay loolu mën na nekk loo xam ne day gën ci askan wi day gën ci réew mi hmm. waaw bu nit ki di làqatu pour bëgg a génn ci mball di tàppaas boo ko gisee da ko war a bàyyi parce que da ngay xool ni gis ni kii kat euh, kuy jariñ li muy def ëllëg après mën na jariñ réew mi parfois jarta yuuxu jarta leeral jaru koo kii comprendre nga. man su ma déggee daal Mame Mbaye dafa bëgg a génn. waaw dafa bëgg génn ci kii bi maanaam day tappaas. ok jamono ji ñuy invertir Amadou Ba. le jour. mi ngi tappaas di wane ni dañu war a tànn keneen am na yu mu sànni. Mm. yoo xamante bi dafa bëgg. ñu am nu ñu moom wane ni yëgu ko woon nii wag ne dafa am yu mu wax léegi yooyu nag Cheikh Bara dafa gëm rek waru ko dénoncer daf ko war a bàyyee parce que bàyyi bi parce que mi ngi pexe pour génn ci mbir yi mais mais génn ci mbiri kay am na voie bu gën normal bu gën a leer non non bu baax xam nga c'est dafa am yoo xamante ne bi nit léeg-léeg mu dugg ci mbir moo xam ne ah. bu ci génn day wut pexe ngir génn ci hmm. prétexte la Mame Mbaye soxla. Ah, ñu ne ko li nga wax waroo ko wala kenn attaque ko mu ne ah yéenay wax loolu fekk li ci bëggoon mooy génn ci bon damay retirer yi sax sama plainte comprendre bu ko defee affaire ba jeex. ok waaw léegi nag léegi le fait que Cheikh Bara gis ko ne ko kii mën na tax mu ne ah kon li may def ndekete mi ngi kii mën na mën na tax dootu ko def. man yow daa jàpp nga ne Cheikh Bara daf ko waroon bàyyi. ci biir ko waaw daf war a bàyyi ci biir pareen saay booy gis ci lëndam. Hmm. gis lii xew bu dee luy jariñ réew mi la bu dee lu baax la gëmmal bàyyi mi dem <laughs> faneen saay ñu toog son bi dama koy wax lu bari faneen ma am peut-être loo xam ne sax mën na bañ a nekk loo xam ni euh, gis naa dëgg waaye damay samay njort ne mën na demee nii mm. ba tax na njort yooyu la plupart damay wax ne du ma ko wax ci kaw parce que bàyyi mu demee noonu mooy doon li gën parce damay jàpp ni looloo gën ci réew mi donc boo njortoo yenn yi bon damay bàyyi noonu mu sedd parce que parfois loolu dafa baax quoi dafa baax quoi parce que pareen saa yi loolu c'est quelque chose de très important parce que li Cheikh Bara wax lu wér la. Mm. waaw lu la loo xamante ni bi tey bu Mame Mbaye roccee kii yoom donc te jox na la ay exemple yoo xamante ni bi ñoo xam ni. waxee nañ ñeneen ñu dàq leen. Aly Ngouille Aly Ngouille Moustapha Diakhaté na ñoo xamante ni donc le fait que am sañ-sañ bi. Mm. li ko def. mu am sañ-sañ bi mooy. li ñu yaakaar a àtte pour sonal ci son mais alaaj loolu kañ lañ koy àtte tamit. puisque élection yi moom li ci des matatul. waaw mais loolu la loolu mooy li nga xamante ni bi rek mooy mbir mi loolu nga xamante ni bi moom lañ yaakaar moo tax fi mu toll nii mbay mën a waxee nu ko neex léegi nag loolu bu bu ko waxee rek après mën na nekk loo xamante ni bi euh, mën na mën na kii quoi mën na mbay mbay bon daa dee retiré wu daal di jéem a bañ bañ lu <laughs> ñu ne ko comprendre da <laughs> fekk ne jubluwaayam loolu la woon waaw jubluwaayam loolu la woon quoi donc loolu mooy li nga xamante ne bi moom laa pare na saay booy xool mm-hmm. yàlla def la nga gis ci lëndam mm-hmm. eh, bu mbiri leeree ci yow yow bàyyil noonu rek mën nga koo wax ci suuf mën nga ko waxtaanee ak ñoo xam ci suuf mais ci kaw bu ko yëkkati bàyyil waa ji mu nekk di def ay jom quoi comprendre nga bu demee ba kii ci yow fekk xamoon nga ko waaw parce que parce que ñàkk koo wax eh. man damay jàpp ni moo ëpp doole non vraiment nag li tax euh, waa ji saawolof wax ne yow la ñu war a jox meilleur chroniqueur je sais pas xam na li tax xam na ne lii nga wax fii nii hmm. ñu bëri comprendre ñu mënuñu woon comprendre loolu mënuñu woon comprendre loolu lan li nga wax fii si Mame Mbaye Niang nii Cheikh li mu wax xam tox beeg jarul wax ak. waaw Cheikh li mu wax moom. lu wér la waaye ndax pare na saa yi jar na <laughs> nga yëkkati loolu ndax boo ko yëkkatee li muy ndax day yàq wal day defar. day defar loolu pare saa il faut poser mbir yi teg ko ci balance xool ba xam quoi. d'accord àddina noonu daf cee baax. jërëjëf ayca mi ngi noonu.